am na ñuy weddi ni yonent bi du ñëw ci wasifa yi am na ñu koy weddi naan yonent bi nan lay ñëwee almadi ñëw yoof ñëw kàmbureen ñëw fas mbaaw ñëw cees xanaa yonent bi day soppeeku <laughs> benn caméra mooy tiim benn nit ci almadi gii di ko film nga dem ba Fuuta ñu koy seetaan nga dem Podor ñu koy seetaan nga dem Wilingara ñu koy seetaan nga ñëw dakaar ñu koy seetaan te benn nit moo toog di wax benn caméra tiim ko tubaab bi gëmul yàlla toog ci kaw balcon am naan jë n'existe pas tubaab bi moo defar caméra bi su ko yàlla mayee tubaab bi ko gëmul war koo may sayduna muhammad mi nga xam ni wa maa xalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayidil mahmudi wa huwa habibu yonent bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, ñu ngi nuyu mbokk groupe alquran ak sunna yëpp di leen ziar eh, di ñëw ci leeral bu gàtt ci vidéo bi nga xam ne moom la teg suma loxo nii te boroom di ci saxal loo xam ne ak neen la waaye li gën a yéeme mooy indiwul benn preuve ci alquran wala ci sunna neewul nit ñi yàlla nee na yonent bi nee na ba noppi daa di ñëw rek di waxee am xelam loolu nag mooy dal képp koo xam ne eh, day ñëw fas ba noppi daa di commencé nag di dox ak a wër di wutal la mu fas dalil su dajul dara ci alquran ak sunna day daal di jëfandikoo rek am xelam waaye vidéo bi damay fàttali benn masala fiq muy masalaam jullee koo xam ne dafa faatu waaye dafa fàddu bi maanaam fañ koy jullee nekku fa masala moomu ku ne xam na ne taxawaayu ngir imaam Malik ci masala mi lu bari ci ay boroom xam-xamu ngir mi dañoo wax ne loolu mënul nekk maanaam terité masala mi taxumaa maa jóg waaye dafa am lu ma bëgga wax rekk ñu bari ci ngir imaam Maalik dañ ne loolu mënul nekk bi amee boroom xam-xam yu leen ne ah waaw <clears throat> yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kat bi Najaashi faatoo moom jullee woon na ko te Najaasi mu nga woon Éthiopie yonent bi mu ngi Madina mu tàggi ko saxaaba yi ba noppi daal di dem jullee ko kon loolu day wane ne man naa ne ñooña tontu ne ah yonent bi sallallahu alayhi wa kat bokkul ak ñun ndax Najaasi suñ borom tabaraka wa dako teewalal yonent bi sallallahu alayhi ci kanamam yonent bi jiite ko boroom xam-xam bu mag ci ngir mi ñu koy wax Aboubacar Ibn al Arabi al Maliki di borom xam-xam bu mag waaye nag moom day sàmm wanteeg dalil bu baax a baax a baax mu ne leen lii ngeen di wax nii de awma sikki sàkk ci ne suñ boroom mën na ko benn awma sikki sàkk tam ñaareel ci ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam yeeyoona yàlla defal ko lool waaw mais li ma am problème ak yéen mooy ana preuve buy wane ne firnde buy wane ne yàlla dafa yëkkati néewu najaas yi indil ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci kanamam mu jullee ko ana preuve bi kon loolu la ñuy wax borom vidéo bi amuñu benn sikki sàkk ci ne borom bi tabaraka wa taala bu ko neexee jotaay bu ñuy tuddee yàlla bu ne ku ko neex mu teew fa moo xam mu ngay dund walla faatu na ku mën a doon nag loolu amuñ ci problème waaye ana preuve buy wane ne loolu ngeen tuddee wasifa su ngeen koy def yuntu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam da caa teew aboubacar di fa teew ak omar ak othman ak ali ak cheikh comme ni ngeen ko waxee lan mooy preuve bi lu koy wane alquran a ngi ni indi leen dalil bu koy wane ci alquran su ngeen gisut te du ngeen gis sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi ni su ngeen gisut te du ngeen gis kon ngeen xam ne li ngeen di wax ni taxawut bokkul ci diina amul benn preuve bu ngeen mën am boo xam ne dafay mën a saxal pas-pas bi waaye comme li ma wax rek li jur mbir mi mooy fas ba noppi daa di soli daal yi wëri dalil soo gisul nag loo gis da ngay gàddu rek daa di ko layee ñaareel bi yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam nim ñu jàngalee julli jàngale ñu ko azaka jàngale ñu ko koor jàngale ñu ko aj màkka noonu itam la ñu tudd yàlla subhaanahu wa ak waxtu wi ñuy tudd yàlla subhaanahu wa taala su fekkee dafa am luy teew wala kuy teew kan lay doon wala lan lay doon loolu yonent bi daf ñu ko jàngalaale daf ñu ko jàngalaale te man ak yéen ñëpp dëppoo nañ ne yéen xeet wi ngeen di def noona tuddee ko al wazifa moom yonent bi daanu ko def ay saxaabaam daanuñu ko def bal bu ñu leen fekkoon ngeen koy def dañ leen di laaj na li ngeen di def nii mooy lan loolu lañ leen di laaj kon moom bokkul ci bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ay nit àndandoo di waxandoo ca kaw yonent bi daan na tudd yàlla moom ak ay saxaabaam waaye daanuñu ko defee noonu kon moom jàngal nañu nu ñuy tuddee yàlla jàngal ñu tam ne majalisu zikri muy jotaay yi ñuy tuddee yàlla malaayika yi dañ fay teew si jàngam alquran wax na ko majtamaa qawmun fi baytin min buyutillah yatluuna kitaaballah wa yatadarasuuna fi ma baynahum illa gachiyatuhum rahma ba xadis bi jeex aw nit fu ñu jotaayu di jàng alquranul karim di ko jàngalante seen biir yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yërmande yàlla da leen di muur ba noppi itam malaayika yi dañ leen di peek dañuy peek seen jotaay bu ba wax na ci beneen xadis tam ne malaayika yi dañuy wër majaalisu dikkër muy jotaay yi nga xam ne dañ fay tuddee yàlla saa yi ñu doxee ba gis rek ñu daal di woote wante ne ñëw leen ci li ngeen doon wër mu ngi nii yonent bi waxut ñu ne moom dafay teew ci benn jotaay bu ñuy tuddee yàlla subhanahu wa taala te saxaaba yi mosuñ di tudd yàlla ci ab jotaay ci wenn waxtu ci bërëb yu limu ñu geestu gis ko ci jotaay bu nekk waaw ñene Madina ne gis nañ ko waa Yaman ne gis nañ ko waa Habasha ne gis nañ ko loolu mosul am ci jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam kutubu siiraa ngi nii kutubu taarix yaa ngi nii ku ko am na ko indi musul am benn yoon loolu mooy ñaareel bi ñetteel bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam jamono bi muy dundu dañ daan gis muy yónni ay saxaaba léeg-léeg ci benn bis mu yónni ñu bari ñii jaar fii ñii jaar fële ñële jaar fële su fekkoon ne yonent bi alayhi salaatu salaam loolu dafa bokk ci li ko borom bi tabaarak wa defal ni kon ku ne xam na ne jëmmam ji dem moo gën a am solo ci keneen di ko représenté sa fam leen di yónni noona maanaam bu waree yónnee ci ay buur wala waree yónnee ci ay xare ba pare moom demut jëmmam ji dem moo ëpp solo jëmmi ka mu yónni noonu dem loolu sikki sàkk nekkul ci waaw lu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon yónnee ba noppi du demal boppam mooy ne loolu dafa bokkul ci yi nga xam ne suñ borom tabaaraka wa da ko koy defal kenn waxul nag ne mën na ko manu ko waxuñ loolu yàlla mën na ko wala manu ko déedéet waxuñ lool waaye ana firnde ne suñ borom daf koy defal firnde moo amul ñetteel bi wala ñeenteel bi waa ji nee na ci vidéo bi benn caméra bi moom mooy filmer loolu ba noppi ñu di ko seetaan ca béréb sàngam ak ci béréb sàngam ak ci béréb sàngam waaw comme ñu ngi koy seetaan kay loolu neex naa gëm mais yéen li ngeen di wax yéen da ngeen koo gisul yéen ci seen bopp sax <laughs> waaye yéen ci seen bopp gëmu leen ko dëgg-dëgg ndax gëmu leen ko dëgg-dëgg mooy ñaata si yéen ñoo judd ñoo xam ne ñu nga ca loola ba faatu mosuñoo gis dara waaw mosuñoo gis dara kon loolu taxawut su fekkoon ne liñ koy nirale ak caméra bi dëgg la caméra bi ñu ngi koy seetaan comme ni nga ko waxee ci béréb yooyu yëpp waaye seen wasifa yi béréb yi muy am yëpp léegi ci ban béréb lañ fa gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala ñu gis fa Aboubacar wala Omar wala Ousmane wala Ali wala ñu gis fa Cheikh si boppam amul ku ko ci wax da ngay wax rek waaye gisoo dara dara nga gisul yonent bi sallallahu alayhi bu demoon bay teew am na jotaay yu ëpp solo yu ëpp doole yoo xam ne ni ko noon dafay teew sa jotaay yooya daara yaa ngi jàng alquran bis bu ne alquran kay moo gën a màgg li ngeen di def noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa kon bi mu ko niiroolee caméra bi waroon na wax ne kon ñoom seen wasifa yi ñoom ñu ngi koy gis ñu ngay gis yonent bi di gis Aboubacar ak Omar ak Ousmane ak Ali di gis Cheikh comme que caméra yi benn nit ko defer te ñu ngi koy seetaan juróomeel bi te mooy bu mujj bi waaw léegi su fekkoon ne man fi ma toog nii dama woote woone man miitam bépp béréb boo xam ne dañ fay defee nangam man mii dama fay teew léegi man lan moo ma wuutelee su ma wax ji lan moo ko wuuteleeg waxi cheikh lan moo leen utale su booba maanaam cheikh biñ ko laajee preuve ci alquran dane yorewu ma preuve ci sunna yorewu ma yéen ay gaayam bu ñu leen laajee preuve ci alquran yorewu ñu ngeen di wax suñ leen ko laajee ci sunna kadalika loolu ngeen di wax ndax xam nga ne kii bu fekkoon ne dafa am preuve ci alquran ak sunna ni ko noon dalay leer ne moom du dem mukk di tuddi caméra yu kenn xamul bu doon am na preuve du dem foofu waaye mooy ne amul preuve ci alquran amu ko ci sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu moo tax muy dem ci ay caméra yooyu léegi man itam kon su ma neexee ma xëy wax loolu su fekkee ne wax naa ko ñu dëggal ma kon ban ban ban ngëneel la la wasifa bi am ak la wirde bi am gannaaw dafa bokk ci ngëneel yi mu am moo yonante bi day teew euh, Aboubacar ak Omar ak Ousmane ak Ali teew Cheikh teew waaw léegi man su ma ko waxee man bu ñu ma dëggalee léegi kon ban ban ban ngëneel la wirde wi am moom la wasifa bi am ndax man mii am naa loolu mëntam bu buñ xëyee suba Demba Ndiaye wax ko ñu dëggal ko moom itam am na loola buñ xëyee gannaaw suba Modou Diop wax ko moom itam ñu dëggal ko kon amatul benn xiima suñ ko weddee maanaam su ma ko waxee ñu weddi ko wala Modou Diop wax ko wala Demba Ndiaye wax ko ñu weddi ko léegi weddi bi ci ban cadre weddi lañ koy teg ndax kële wax ko ba ngeen gëm ko amul preuve léegi man ma wax ko ma it aw ma waaye ngeen bëgg maa weddi kon kay weddi leen ñu ñun ñaar ñëpp il faut ngeen weddi ñu ñun ñaar ñëpp beneen bi lii nag secret la boo xam ne maa leen koy wax mooy gis nga li ñu naan yonent bi day teew Aboubacar day teew Omar teew Ousmane teew Ali teew xam nga yonent bi moom ku ne xam na ne xeetu doom aadama moo ci gën comme nim ko waxee ne ana sayyidu wala di aadama saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala xeet wi gannaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñeenti ñii ñoo si gën waaye ba ñooña jàllee lu tax gaa yi ñëw daa di ne yonentu day teew njëkkee ko Aboubacar day teew Omar day teew Ousmane day teew Ali day teew ñooñu yitteeluñ leen ci mbir mi xam nga lu leen yitteel dëgg-dëgg mooy Cheikh day teew loolu moo leen yitteel waaye nag mënuñoo xëy dal ci ñemewu ñoo xëy dal si daa di ñëw rek ne waaw wasifa yi buñ koy def Cheikh day teew ka kon dañ leen wax ne le waaw lu tax yontu yàlla Muhammad moom du teew yéen lu tax xulafaa rachiduna yi duñ teew gis nga moo tax bañ péegee ñële saxaaba yonent bi fa des yëpp dañ leen war dañ leen bàyyi tudduñ keneen su fekkee ngëneel moo tax cheikh moom di teew waa léegi <laughs> ñi ko gën kay bari ne ci biir saxaaba yi biir saxaaba yi amul fa morom ñépp ko gën lu tax ñoom ñooñee ñoom tam duñ teew waaye yëg leen ne li yitteel gaa yi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy cheikh day teew rek laa ne munuñ munuñ munuñ xëy dalee ci nag moo tax ñu indi yonent bi daal di indi saxaaba yi ba noppi daal di indi euh, daa doog indi ki nga xam ne ni moom mooy cheikh kon euh, loolu rek lañ bëggoon a leeral ci vidéo bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbokk leen ziar. waa koy di jaajëfal nag suñu cheikh na cheikh mi nga xam ne démb joojoom bi alhamdulilah moo ngi doon sàkku mbokk yi ñaanal ñu wér yàlla dogal la alhamdulilah euh, wala xaw ma démb la sax wala barki démb laa kuñ xaal awaan nañu bu baax baax ñoo ngi sant yàlla bu baax euh, di gërëm mbokk yëpp waaye xanaa aw Ibrahim sa waajee vidéo bu reelu bi man de li ma jaaxal mooy moom de écran boobu mu koy niroleet Euh, bi jiitu mooy du ma gis ñenn ci ñi nga xam ne dañ toog di seetaan télé wala écran bu manti doon ñenn ñu ciy doogu ne kii di wax ci écran bi dafa teew fii ci sama saal bi kenn dafa teew fee ci sama saal ba ñenn dafa teew fee ñii dafa teew dafa teew ci barab yëpp déedéet waaye la gëm mooy comme ni mu ko waxee moom ne nii vidéo caméra baa ngi ci almadi ñëpp dañuy gëm ni nii caméra bii almadi la teew kon fa la waaji ne li muy wax ni message am bi fofu la koy da fay law ñëw ci ñun lool mom la ñep gëm ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ma nga medina fa la faatu fofu la teud message am fofu la ko doon jottalee mo ngi wër te loolo ci wér leneen li ci def li ci gëm ñom tassaw nga xamni ñom ñoom suufi ñoko gëm lool daal du ci dëgg loolu taxam ne tas suufi yànk ñoko wëto lool du ci dëgg benen bi moy ñom même cheikh mi ñi wax ne ni mom lañu wax ne mom lañu gëm ne day teel ci seen barab yi ñoom ñooy daggi paas di demaat Maroc di man loolu man sama seen xel fan la ne la xamut man koo xam ne yow gëm nga ne yow bët bu seen jataay bi ngay def moom mu ngi ci toog waaw kooku kay boo ko bëgg siyaare kay doo ko siyaare foofu kooku loo ci déplacé dem ci bàmmeelam mais léegi ñoom kon alal yi ñuy dagg xaalis di dem Maroc di dem feneen ak loolu lan lan la leen di jëriñ ñoom loolu lan la leen jëriñ même buñ ko gëmoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne moo gën a màgg ñëpp gën a tedd ñëpp gën a kaw ñëpp daraja waaye léegi kon ñoom luñ ciy dàggati te ñoom ci ñoom kat ngay dégg ñu naan dem siyaare ji borom barrière or ne ni am na ñoom ñu xam bu ñuy aji màkk yow boo leen déggee la leen ñuy wax da ngay am dut ci seen aj ñoom ndax seen yéene nekkul dem mottali ji farata bi wala waaye de da ngay dégg ko naan damay dem siyaare ji yow ma yóbbu demoon naa damay dem siyaare seen yéene daanaka yëpp dafay mel ni moom mooy dem siyaare yonent bi alayhi salaam ànd ak ne lu am solo la na am siyaare yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye kii dem di aji màkk moom li ko war mooy yéene aj ala kulli xaal ñii seenu xel moo manqué tasawuf problème bi mooy xel yi ñoo tijjeeku te waaye bis bu yeewoo rek nit ñi bale